mooy ñëwunu fii pour xuloo wala du xeex ñu sommes tous des délégués lan moo nu motiver mooy lan l'intérêt du personnel intérêt personnel la taxuñu jóg ñun dañu gëm ni délégué dafa war a neutre mooy lan war nu wane fenn sunu appartenance politique on doit être apolitique amul fii lanu far amul fii lañu far DG bi fii ñëw ku fiy nekk ak ça nous importe peu amul nu njëriñ ñun on est là uniquement pour le personnel personnel bi mooy li mu bëgg ñu ngi ñaan yàlla DG bi fi nekk fekke moo fi nekk mu jàppale nu si muy lan suñuy problème yi nga xam ne à l'interne mi ngi fi pour mu pour mu pour mu def le tout pour que mu régler que le plus rapidement possible muy lan premier premier problème boo xam ne peut-être mën naa ko citer muy personnel ONAS dañ fi nekk yàgg fi boo ONAS amee ba léegi amuñu benn possibilité pour am dëkkuwaay ñu ngi koy ñaan di ko di ko di exiger à ce que mu jàppale ñu ci loolu problème prestataires yi aussi c'est un problème qui est très délicat prestataires yi mu gis imaginez ñoo nekk fi plus de vingt cinq ans de service ba léegi ñu ngi demander à ce que ñu embaucher leen te ba je pense que il est temps que tamit ñu ñaan yàlla DG bi mu def le tout pour lijjanti leen tamit ñun on a tout fait depuis le début ba mu fi ñëwee ba léegi dañu primer le dialogue dialogue moom mooy lan dañuy waxtaan waxtaan nag moo mën a indi lépp mos nu réeroog ak DG bi tout le temps bu ñëwee toog daan waxtaan nag moom si lan moo mën a yëkkati yëkkati ONAS si kalam mooy avancement ONAS mooy que ñi ñu fi nekk di si gis seen bopp muy liggéey bu métti métti métti vu les résultat bi nga xam ne mooy nawetu daaw ñëpp yéen teg ngeen si yéen bët il a fait un travail exceptionnel extraordinaire léegi nag loolu ñun on n'est pas pour polémiquer kii def na lu baax wala kenn doo loolu di suñu prérogative suñu prérogative mooy lan lu ñu war a def suñu devoir mooy yëkkati def la tout ba liggéey bi dox